non am na solo vraiment je crois que principe posé nañ ko professeur wax ji ñëwaat na yow depuis quand nga seetlu ni ah dëkk bi ni muy doxee am na loo xam ne war nañoo tiit parce que man li ñu rappelé wu xaw ma ndax euh, mën nañ ñu ko nangul xaw ma dañoo ne Senghor daf ñoo bàyyil benn état loolu wax la bu sénégalais di wax souvent mm. euh, mais depuis quand la ñu sentir ni état boobu ñu ñu bàyyil kat dafa commencé di yànq waaw Babacar docteur Seck dafa poser problématique yu bari. yu bari ci biir analyse bi te bu nekk am ci importance. je vais essayer de reprendre li mu wax yi en essayant euh, gaaw. Uh-huh. parce que c'est trop profond li mu wax. Uh-huh. Euh, ñu dellu si si Paris je le remercie pour euh, conception bi mu am ak vision bi nga am pour ñu yokk jigéen ñi. Uh-huh. je suis heureuse ñu ñu bokk benn constat moo di il faut qu'il y plus de femmes chefs de parti boobu au moins ñu ngi ko doon wax. moom dëggal nañu wax lu tax mu wax ko maintenant la parité ñun bi ñu koy concevoir la parité n'est pas une finalité hmm. l'objectif c'est l'égalité c'est pas la parité la parité n'est qu'un moyen pour aller vers l'égalité euh, euh déclic la waroon doon pour que les femmes li ñuy wax su théorie du genre mu am accès maintenant au niveau de la gouvernance ça ne peut pas être mécanique non plus am na li nga wax lu am solo ñun gis nañ ko moo tax bi ñuy wax 10 pour cent hmm. y a beaucoup de femmes qui se lèvent dans pour cent Mais nous, on est des chercheurs, si so, euh, fixer un objectif, tu te donnes les moyens pour y arriver. Nous savons que les deux tiers des communes sont des communes rurales au Sénégal. Mm -hmm. Et dans ces communes rurales, il est illusoire, mm -hmm. c'est exceptionnel, que diriger Ça, c'est le niveau de notre culture agri Ce n'est que sur le tiers des communes mm-hmm. que nous espérons avoir euh, mm-hmm. Donc, c'est un processus. Ligne déclenchée, parce qu'il y a dans les années 70 comme disait Amita Mbengue Ndiaye ba mosaan ñëw di seet jigéen ñi si dëkk bi dañ daan daw làqatu ji hmm. la plupart des femmes qui sont aujourd'hui conseillères rurales sont le produit de ce que le ministère de la femme faisait comme formation comme euh, euh, émancipation comme on dit estime de soi ba ñuy teg fa donc nous on travaille de tant que soo maa ngi ma leen c'est dans vingt ans du hmm. point de de la trajectoire que nous aurons dans les collectivités l'égalité suñu xoolee processus bi muy dem si la ñu ko estimer donc si tu réfléchis comme chercheur tu te dis quel qu'est-ce qui objectivement est possible maintenant soo xamee loolu xam limite bi nga jóg di ci liggéey pour dindi ko c'est ce que nous faisons avec le programme WPP c'est parti d'une critique de la parité pour laquelle nous avons travaillé mais nous savons les limites objectives mmh. maintenant euh, l'objectif c'est pas d'avoir cinquante hommes cinquante femmes c'était de créer une dynamique pour avoir une que en on te dit que c'est par la masse critique que tu peux faire basculer les choses. En, en, fait, on le situe autour du tiers. Si vous êtes en dessous du tiers, en général, vous ne pourrez pas faire basculer les choses. Donc, il a de, toutes les théories scientifiques derrière ces débats-là que nous sommes en train de poser. Maintenant, population, si mais il y a toute une analyse, une réflexion derrière. Mm. Donc, mais connaître ses propres limites fait partie aussi de l'intelligence. Maintenant, c'est de voir, de prospective, dans combien de temps nous pourrons atteindre tel maintenant quels moyens nous devons utiliser pour pouvoir euh, le, le faire bu ñu ñëwee nag ci li ngay wax état euh, je retourne à l'anthropologie politique qui est mon ma spécialité euh, quand on dit que les états nous avons hérité d'états et d'institutions euh, may gërëm euh, un groupe qui s'appelle Cosaanu Sénégal di si gërëm du Jaw Baxaw et Mam Sine on travaille sur ça sur les fondations de l'état wolof mmh. à partir du waalo comment les institutions progressivement ont été mises en place si li ngay wax li dans le mode de gouvernance il y avait une approche inclusive et puis li ngay wax n'est pas la concentration du pouvoir entre les mains du braque donc chaque ku nekk joxoon na la cër boo xam ni yow moom nga jëloon bu ko defee réew mi ñu mën ko ŋànk ku nekk am si responsabilité donc euh, il y Euh, c'était pas la cause base boo xam ni démocratie bi ñuy wax pas je n'utiliserai pas le concept de démocratie mais j'utiliserai le concept de gouvernance inclusive mm-hmm. toutes les catégories sociales dans le royaume étaient représentées à l'Assemblée nationale en tout cas l'équivalent de l'Assemblée nationale le Sebok Bor mais en même temps il y avait une répartition des responsables une déconcentration des responsabilités kàngam bu nekk am nga loo xam ne yow yaa ko yëlif y compris la peine de mort celui qui pose la peine de mort ak kan moo am droit exécuter ko et cetera donc suñu retourner dans nos institutions parce que les trois nous font croire que nous n'avions pas des États mm-hmm. alors que ce n'est pas vrai oui. Mm-hmm. il y a eu tout un processus de construction malheureusement euh, le processus a connu un coup d'arrêt avec la colonisation qui est venue avec beneen vision du monde oui. Mm. évidemment ce qu'ils nous ont apporté c'est pas leur État mm. ah. c'est les systèmes pour nous pour pour nous diriger pour leurs propres intérêts loolu moo tax Euh, malheureusement euh, avec la les indépendances octroyées nous sommes repartis avec ce modèle-là qui n'était pas un modèle de développement les institutions que nous a laissées n'étaient pas des institutions pour le développement de nos nations c'était des institutions pour les intérêts et les services de la France maintenant li ngay wax li le modèle de Senghor quand Senghor ils ont eu octroyé ces gens qui sont les pères de l'indépendance on doit aussi accepter que am na lu ñu gëmoon. Hmm. am na lu ñu bëggoon. parce que tout le monde disque ay tubaab la ñu woon je ne suis pas d'accord avec cette thèse il faut lire les les libertés de Senghor tous ces tomes sur les libertés euh, ay nit ñu parce que bu gëmul woon du gëm la ba inventer la négritude. Hmm. pour xam son identité par rapport au tubaab. maintenant ils ont essayé ñoom période bi ñu leen bàyyilee jéem a doxal en essayant de de se rapprocher de nous. Parce que Senghor était très proche de religieux. Oui. Senghor était très proche des populations. Mmh. Senghor avait continué à avoir des, des, des relations jusqu'avec les paysans à qui mu doon bind ay lettres mu koy tontu. Et j'en ai des preuves. Alors donc mais Senghor avait aussi un idéal d'une d'une société tout en étant li mu wax enracinement et ouverture xam na li xew ci biti jéem na seet nan la koy tegee c'est maintenant qu'on doit redécouvrir cet homme malgré tout ce qu'on naa di sur lui mais bàyyil nañu dara loo xam ne Sénégal yëpp ñoo koy wax mooy li ngay wax bàyyiloon nañu ay des institutions. Hmm. yoo xam ne au moins am na lu ñu ci tënkoo woon des choses impersonnelles pour nga am post concours moo la fay dugal ya avait des règles qui faisaient que noonu lañ la fay jëlee mais léegi nan lañ lay jëlee soo nekkee ci parti bi ñu jël la teg la fa même soo xamul dara munoo dara loolu moo tax institution yi nërmeelu léegi. c'est-à-dire institution dafa nërmeelu fi mu fësee. c'est à partir de mille parce que ceux qui sont venus au pouvoir xam nga li ñuy wax mémoire institutionnelle dañ la koy jàngal dañu ñëw bëgg falaxe ñëpp ñoom ñëw toog te mënuñu dara. alors c'est ça le problème mun mënuñu dara mais à moment donné ñu dem tibbiwaat ci biir parti socialiste or le parti socialiste a connu aussi une rupture par rapport à la gouvernance de Senghor ce qu'on a appelé le congrès sans débat Pour moi, c'est là où je date. En 1996. C'est là où je, où je date le déclin des institutions. Parce qu'arrive au pouvoir une nouvelle élite socialiste qui n'est pas doctrinaire, qui, qui ne possède pas la doctrine socialiste, mais qui sont juste des technocrates ou des gens qui ont travaillé sous Senghor et qui prennent le pouvoir. Ils prennent le pouvoir sans avoir toute cette capacité théorique mm. euh, d'analyse. Parce politique loolu la aussi une nation loolu la aussi donc ñu ñëw à partir de ce moment foofu la commencé je prends ah, et comme c'était des des guerres d'intérêt léegi pour nga sauvegarder ce camp da ngay jël sa nit ñi nga woolu léegi nag foofu la lañ changé on ne prend pas la personne parce que dafa am expertise mais dañuy jël nit ki parce que da nga ko wóolu je donne juste benn anecdote il y a Souleymane Nasser Niang qui était directeur de la fonction publique on était ensemble en moom muy toppatoo Euh, euh, fale fonction publique man may lijjanti ministère la femme parce qu'on était des les experts pour travailler pour ce pays euh, fekk ma bëgg analyser ministère bi mais pendant un mois et demi mënu ma fexe ba gis nit ñi mu woo ni ma kaay gis nga doo gis jamais nit ñi ma ne tax mun ma fii comme seen salaire dafa ba faible ay ay cinquante dollars lañ leen di fay kenn nit ku nekk dana fexe ba inscrire juróomi nit donc c'est des personnes fictives qui ne viendront jamais d'ailleurs foofu ba léegi retraite amul hmm. da ngay liggéey rek ba mais Souleymane Nasser ce qui m'intéresse dans ce qu'il me dit dañ ko nommé directeur de la fonction publique ñu dem boole ko ak Abdou Diouf ni ko kii dañ ko def directeur de la fonction publique te il n'est pas te c'est un parce qu'il était de And Jëf ou de Troca il n'est pas socialiste non ah, il communiste ou de Troca connu ñu ne ko oui mais c'est de haut vol extra léegi mu ni ma euh, Abdou Diouf ne leen et après mais il fait son travail est-ce que aujourd'hui di nga gisaat niñ buy réfléchir noonu et il l'a laissé à son poste danañ dem boole ko ni ko dindi ko la demal dafi politique waaw mu ni ko mu ni ko mun Abdou Diouf bi mu leen waxee mu leen et après il fait son travail c'est que Abdou Diouf était encore sous cette logique de la formation senghorienne mmh. où c'est les, les, les compétences etc qui t'amenaient au pouvoir mais quand après une nouvelle élite des socialistes vient sans avoir cette culture de, de départ et aussi avec euh, la fragilité du système à l'époque ku nekk da ngay wut ku la sës ak koo xam ni moo lay jàppale et pour ñooñu ngay teg sur les postes de responsabilité et malheureusement quand le modèle libéral est venu ñoom oui. encore doublé de la rupture parce que ils ne connaissaient pas l'État mm-hmm. donc parce que man gis naa tangu président Wade léegi ñu mer dañ daan toog di di lijjanti direction yi naan naan direction nangam nañ ko fa dindi man am na kenn ko ñëw ni ma waaw kii ak làmb ñu bëri lu tax euh, mu directrice laboratoire lu tax duñ ko fa dindi ils ne connaissent pas que je je connais c'est moi qui ai créé mon laboratoire hmm. je n'ai jamais pris un sou de l'université suy suy fonctionné man maa koy fonctionné non ils ne comprenaient même pas comment fonctionne l'université parce que université du fonctionner noonu c'est de manière démocratique qu'on crée mais même suñ ko jëloon duñ ko mën fonctionner loo parce que li ma doon liggéey université joxuma ko bourse yi ma doon may université joxuma ko projet yi may financé di def ay recherche bu université joxuma ko c'est ma capacité à avoir des partenaires qui me permettaient de le faire mais pour te dire jusqu'où ils sont allés au départ ni ñu doon wëri suuf yi fan fan ban terrain moo am si dëkk doon ah, wëri ban direction moo am ñu ko fa def ko koo xam ne ci parti bi la nekk mm-hmm. donc tu vois quand tu arrives à ce système de déconfiture mm-hmm. c'est comme ça que tu dois l'analyser aujourd'hui nag institution yëpp ñoo nërmeelu mm-hmm. si on veut dire au Sénégal loolu la parce que fonction publique dafa amoon critère d'évolution hmm. da ngay liggéey di am ay avancement tous les deux ba nga mën a àgg directeur da ngay commencer bureau bu daw commencer nekk ba am direction ba nekk dara mais nga xëy suba tey mosuloo liggéey ñu nommé la directeur national hmm. sans aucune expertise hmm. au départ parce que aujourd'hui c'est le parti qui te qui te nomme à ses foofu la institution yi commencer yàqu parce que si si on fait même chose Euh, dans la justice, mhm. si on fait la même chose dans l'armée, dans la gendarmerie, etc., où va aller ce pays-là donc y a y a des maintenant yéen a ngi wax naan affaire assise nationale. Mhm. nga xam mosuma jubóo waa assise nationale yi. Mhm. parce que là les assises nationales pour moi c'était des personnes qui qui qui voulaient parce que pendant ils n'avaient pas fait le nekkatuñu woon député xam dañu boycotté woon élection yi. il fallait que ñu retrouver des moyens, peu importe, c'est-à-dire le contenu de la geste nationale, c'est magnifique ce qui est mhm. sorti. Parce que c'est un mouvement boo xam dañ dem jël mais la ko initié woon la ko taxoon ci sa sa kii ba société bi taxu ko woon jóg. La preuve ce sont ces mêmes personnes mhm. qui se sont retrouvées au pouvoir qu'est-ce qu'ils ont fait de ces assises ils l'ont oublié c'était juste un moyen pour pouvoir continuer leur existence mhm. et puis ñu ñëw dem donc les gens continuent là donc manal maintenant bi ñuy wax c'est une question d'homme c'est-à-dire il nous faut on a beau dire colonisation bi et cetera et cetera on ne on ne retournera plus en arrière mais la question aussi c'est d'avoir un leadership des gens qui ont une vision yoo xam ni am na lu ñu bëggal seen réew am na lu ñu yore seen réew mais am nañ capacité ba am nañ xam-xam bi am nañ moyens yi pour def ko hmm. mais au départ li jëwtu mooy ngëm-ngëm bi donc si on ne sort pas dans ça euh, buñ ko buñ fa jàllul duñ fa àgg te léegi réew mi fi mu jëm mooy tasaaroo mooy ku nekk bopp sa bopp la. naka nga mën a fexe ba am dara. amatuñu un idéal commun boo xam ne moo ñu war non l'idéal est matériel. cest dire bu njëkk bi idéal yi comme li ma doon wax. suñu ceddo yi liñ ñu fi bàyyi loon tabaxuñu dara. mais il nous wutuñu ay immeuble et cetera. ñoom gëm-gëm lañ ñu fi bàyyi woon te seen bakkan. Ah, seen ngëm-ngëm boobu moo leen gënaloon seen bakkan hmm. c'est-à-dire il croyait à des valeurs ba mu jaral leen dee et je retourne toujours sur Talla Tinder mais ya a y a d'autres choses plus importantes que dans cette affaire où les gens ont donné leur vie pour pour pour leur pour leur conviction pour leur nation est-ce que nag loolu pour nga mën a tabax ay institutions il faut nga tabax ay esprit ah, c'est-à-dire c'est très profond mm-hmm. que ce que ce qui est en train de se passer oui. et c'est là où il va falloir que ñu fabriquer la nouvelle génération pour ñu delluwaat sur le projet de Sénégal qu'on veut et ça c'est un travail de de fond loolu loolu moo tax il faut le refonder à partir des familles c'est pas seulement l'école mhm. si biir kër gi valeur fondamentale yi famille bi gëm mooy tax nit ki du sàcc nit ki du fen nit ki du def du def yenn yi au euh, est en train d'aller je termine sur les élections mhm. suñu ta sama député maire bi suñ ko tegee Thiès Thiès day dem gannaaw parce que du gëm nañu du détourné du day dem kanam plutôt gëm nañu du détourné kees ba du détourné kees ba mhm. du jaay suuf ba <laughs> parce que pour le moment daal député femme yi maire femme yi fi teg ah bu amee tam xëy na barewul. ñuy jaay suuf ak di këpp kees. Euh, Khoudia Mbaye nga ne Gandon ba mu fekkee conseil ba. Euh, bëggoo bëgg saax saaxi suuf sa ba mu ko yëgee dafa annulé affaire ba. loolu góor ñi duñ ko def de buñ dañuy jël seen wàll ñu dem seen yoon donc voilà un eh, peu Babacar. non am na solo le thème est très Vraiment. profond. ak seen ngeen bi mais dafa am benn pàcc man bu ma si xaw a intéressé honorable mooy que ni euh, c'est vrai que wax nga ko léegi sax ñi nga xam ne dañuy def politique. te peut-être waroon nañ ko mën a bañ def wala poste yoo xam ne dañ koy jox des politiciens parce que ñu féete alors que manoon nañ ko bañ a yore lu mel ni yaa ngi gis léegi ay magistrats yoo xam ni ils sont au cœur de la vie politique sénégalaise te ñu jox leen ay institutions yoo xam ni dafa délicate nga gis ñoo xam ne maanaam politique bi euh, lu mel ni impôt wax naa ko léegi ak domaine ñoo xam ne dañu def politique te peut-être que mënoon nañ ci bañ a dugg loolu est-ce que bokkul si li nga xam ni mooy yaxanal euh, mooy euh, déggu ma wolof naa bàyyi. naa bàyyi mooy nasaxal mooy